facteurs yi nga xam ne moo tax ba tey Macky Sall toll ak régime am toll ci jamono bi mhm. jamonoy déni mhm. boo xam ne peuple bi daf ko daf ko nekkee mhm. est-ce yooyu loolu bokk ci injustice bi dañu faral di gis souvent un deux poids deux mesures ku am ndey ku ma amul ndey oui ci réseaux sociaux yi rek yow boo fa nekkee di saaga xam nga saaga ñëpp a ko condamné oui mais boo faree du camp du pouvoir yow dara du la dal la preuve un insulteur saaga na toute la république fu mu mujjee def fi avec le président de la république ñaata insulteur fii lañ fi jàmm ndax dañoo saaga autorité diw mhm. wala dañoo waxal diw nangam ñu plainte leen fi mhm. jiit leen diffamation da ngay yeew taal sa taal sa téléphone gis ku taxaw lim le leader de l'opposition wala benn pont ci opposition koo xam ne kilifa la mhm. ci âge ci famille ci juddu ci poids politique ak lépp nit teg ko di ko yàq lu ne sans s'inquiéter après kooku muy duggaat ci suñu institution yi di dugg di génn yow nga taxaw ne kilifa diw nangam rek demee dig jël si la wala nga jot sa convocation gendarmerie boo demee ñu jàpp pour telle ou telle autre raison sentiment d'injustice boobu noonu di xam sénégalais yi moo tàq jamono ji d'accord mais et les premières conséquences on voit euh, on clairement que finalement ñii di incarner yenn yenn institutions yi mm. ñuy affaiblir ces institutions la parce que dañ ciy dugal loo xam ne bokk ci te mën na sax finalement décrédibiliser Sénégal à à l'international. les premières ennemis des institutions c'est ce qui incarne l'institution elle-même. Mhm. parce que boo xoolee Sénégalais yu bëri lu neex jamono ji mhm. nous regrettons ku mel ni Bruno Diatta. Mhm. bi mu fi nekkee am na yenn mbir yoo xam daanoo gis autour du chef de l'État. am na yenn doxalin yoo xam dootoo ko gis autour du chef de l'État. genre nit yu mel noonu la ñu soxla autour du président de la république mhm. mais am na yenn nit ñoo xam ne bu ñu nekkee autour du président mënuñ ko apporter lu dul maanaam benn désengagement wu sénégalais envers doxalinu président boobu xoolal le président Macky Sall c'est le président qui devait qui avait plus de chance de réussir mhm. ci quatre président yi fi jàll non seulement son parcours dafa baax mi ngi jógee ci directeur ministre des Mines, ministre de l'Intérieur, premier ministre, président assemblée. élu par un peuple bu fipp woon teg dënn benn régime bu fi nekk ci mbirum troisième mandat. Mm. il y a eu vingt deux morts. les jeunes étaient dans la rue il a élu à soixante cinq pour cent. mu ñëw nekk jeune ñëpp bëgg ko xam lay woon na la le président au début nit dañ ko bëggoon xoolal style vestimentaire bi mu fi indoon xaftaan mag yi. Mm-hmm. jeunes yëpp ñawlu nañ ko. tendance mode loolu c' était une première homme politique am loolu Sénégal. les jeunes s'identifiaient à Macky Sall, à son style, mm-hmm. à sa façon de faire. mais à un moment donné dafa wàcc yoon boobu noonu sénégalais yi doon xool indi beneen façon isolé wu du communiqué et puis le président Macky Sall son plus grand problème avec les sénégalais c'est qu'il communique pas réew mi mbir dafay xew boo xam ne war naa tax tout le gouvernement yeewu quatre heures du matin wax ak askan bi mm-hmm. mais ñu def ci silence trois mois kenn du ci wax le président na parle pas son premier ministre ne parle pas le ministre de tutelle n'en parle pas ñi ngi wax ci bu président demee ba gis ne y a colère noire mu tape sur la table comme ni ko nit ñi di tooñee Macky prend des mesures Macky tape sur la table mm-hmm. euh, la concerné door a génn di wax mais burul loolu duñ ci wax alors que dans un pays wala dans un autre pays le président muy jug a n'importe quelle heure wax affaire mais est-ce que du wax dëgg bi si euh, euh, ñi nga xam ñoo ko. Ah, parce que son entourage waxatuñ euh, ko réalité bi li ñu koy mooy yaa fi ne yaa baax yaa rafet. et malheureusement c'est pour des intérêts personnels. pour leurs intérêts personnels parce que man mënuma concevoir le président Macky Sall. yore réew mi di doxalin doxalin boo xam ne xoolal par exemple semaine nu élection yi. Mhm. nombre de personnes yi président Macky Sall recevoir. neexal leen jox leen ay mbir dégg leen lii dif def nii def lii nga foog la loolu jàmm la. yow nga yaakaar ne bu fekkoon ne xaalis ak geste yooyu mooy maintenir un président au pouvoir moom dana falu ah, moom bi muy falu ku ko gënoon tabe mm-hmm. daa ko ko joxe. Mm-hmm. sénégalais yi gën ko estimer moo fi nekkoon yor alal moom bi mu yor lépp daax ko ko joxe te moom da ko gañe mm-hmm. c'est-à-dire on dirait que le président Macky Sall il oublie moom passé fi mu jugee ak li ko fal président Macky Sall bi muy falu Abdoulaye da doon recevoir ba deux heures du matin trois heures du matin ku dugg mu yëkkati ay millions jox la ku dugg mu yëkkati 4-4 jox la preuve moom bi mu faloo oto yëpp moo ko récupéré jox ba jox chef de quartier yi oto xaw ma chef de village yi moom it mi ngi defaat pareil yokkal salaire nii jox chef de village yi ay indemnité jox diw nii jox jabaru ambassadeur yi loolu falu ko et puis nit ñooñu muy recevoir di leen jéem a jox benn somme wala benn quota wala benn montant wala benn geste boo xam ne wala benn faveur bu ñu doon xaar depuis un bon temps mais lan moo tere woon pendant tout ce temps la mu fex woon ñooñu nekk ci jàmm bu dee jaaykat bi ci marché bi di gis produit bi taxe yi moins cher mu di ko jaay di ci am bénéfice yi mu ci war a am bu dee kii concurrence ak ay société étrangère état bi fexe ba mu toll d'égalité ak société étrangère yi mën di gagner marché bu dee commerçant bi la produit de denrée yi mu soxla mu mun di ko jaay bu dee consommateur bi la produit accessible à des prix très bas mais yow pendant tout ce temps là loolu ñoru la un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans cinq ans yi fi législature bi nekk président xalaatul ñun ñëpp. Mhm. toog ba dernier moment ñu ne benn semaine a des élection yi nga bëgg a dajale ñooñu. da nga leen di satisfaire. dañuy dañuy jël sa xaalis. <laughs> dem toog seen kër. mosal ci ñi ci war a mosal jour vote sax boo moytu duñ vote wala ñu génn voteel ku leen neex. Mhm. parce que yoruñu baguette magique boo xam ne li nga deful ci cinq ans. législature bi mu fi ne mën nga ko def ci cinq jours wala ñett fan c'est impossible et malheureusement son entourage dañ mm-hmm. fay ne du ko loo parce que la plupart du temps ñooy dem jël seeni nit audience palais daa leen utal dana leen jox temps man temps la cest à mafia boobu heure bu wëree président rek président bi mooy xamatu réalité wu terrain te bu waa président bi du réussir d'accord balaa ñuy ñëw ci li nga xam ne moo xewoon ci conseil des ministres euh, Euh, tout à l'heure mais euh, ci ci loolu Cheikh Ousmane euh, gis nañu Macky Sall wax nga ko mm-hmm. di dam vers des gens yoo xam ne par exemple bu ñu génnee ci local yi am na ñu bëri ñoo xam ne jot na gisante ak ñoom ba ñenn rallier la coalition Benno Bokk Yaakaar ku ci mm-hmm. mel ni bi gën a frappant muy Bamba Fall mm-hmm. mais finalement on parle même de de de de de tonneau yoo de de de tonneau vide yoo xam ne ñoom dañu ñëw ils pensaient qu'ils apporter Macky Sall pensait que mën na leen indil dara mais finalement c'est rien Macky Sall ne comprend pas finalement ce qu'est le caractère du peuple sénégalais ah, le peuple qu'il dirige xam nga fi ñu toll en 2022 mhm. les sénégalais on sonné la fin de la transhumance xam dañ ko abolir jeex na mhm. te attention xam nga ci sanction vote la ñu yemagum ak moom j'ai peur que si cela persiste ñu àgg ci sanction physique parce que c'est une chose boo xam ne dafa dégoûter Sénégalais yi gis nga peuple da ngay mën def lecture ci mbir mii bëgg nañ ko wala bëgguñ ko buñ ko bëggul yow ñoom ngay représenter nga jël teg ko na leen. Mm-hmm. dafa nekk mbir moo xam ne en unanimité ñëpp nangu nañ ni Sénégalais yi dañ ko vomir. bëgguñu ko du yëfu góor en réalité doo doo doo doo parce que dafa neexul nga taxaw ci digg mm-hmm. Médina wala nga taxaw ci digg Kastoor wala feneen nga man ànduma président Macky gisuma sam bopp ci moom réew mi mënu ko doxal jëmut fenn demut mm-hmm. fenn mm-hmm. askan bi ànd ak yow mm-hmm. taxaw def bouclier sa kanam contre des contre du régime au prix de leur vie di ci blessé gis nga Médina local yi booy yi ci blessé ci ay xeexu jaas yi ñu ñëpp Bamba Fall tëxañ leen du jour au lendemain ne leen ma koy fi gën et puis boole ko benn arrogance bu kenn xamul xam nga am na ñu transhumé sax après def tekk toog nekk seen ndox mais yow plateau plateau nga bëgg fa bëgg justifier li nga lii nga xam ne moom nga def te moom nga doon dénoncer y même pas un mois non. nekk le tireur d'élite contre les oppositions loolu Sénégal loolu Sénégalais dañ lay dañ lay sanctionner. Hmm. moi quand je vois Bamba Fall attaquer l'opposition Khalifa Sall Ousmane Sonko Barthélémy Dias. Hmm. mais loolu loolu loolu c'est triste même. Hmm. dañ koy yërëm en fait. c'est ça c'est ça alors euh, bu ñu dañuy ñëw euh, tout de suite ci conseil des des ministres bi. Mm-hmm. Euh, mais balaa loolu ma fàttali ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan que dans un instant euh, précisément dans 17 minutes. Mm-hmm. Euh, la coalition Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. avec la présence d'ailleurs d'Ousmane Sonko qui est actuellement à Dakar. Euh, dinañu janook askan wi ngir wax certainement ci wàllu résultat yeeg législative yi ak ci nga li nga xam ne moom la ñu jëm muy. quatorzième législature bi nga xam ne war nañu ko installer en septembre ndax opposition bi ñoom ñooy amee présidence bu assemblée nationale mm-hmm. loolu résultat yi nga xam ne mooy résultat définitif yi moo koy définir après cohabitation bi ndax am dina am mm-hmm. loolu itam euh, loolu moo koy définir ndax euh, opposition bi elle reste convaincue que cohabitation moom dara mënul fexe ba du fi am mais mm-hmm. euh, nguur gi moom ñoom nee nañu cohabitation c'est impensable alors que loolu <laughs> Euh, résultat yi moom moo koy définira ah, te li ñu amagum ci ay résultats provisoires dafa wane que Yewwi Askan Wi est largement au-dessus et premier mmh. et reste majoritaire à l'Assemblée nationale mais loolu euh, pour que ñu am ci ay euh, lu lu définitif il faut que conseil constitutionnel dal di koy proclamer bu ko mmh. defee ñu am ci lu leer alors Cheikh Ousmane ci li nga xam ne mooy conseil des ministre bi mmh. gis nañu ne Euh, Macky Sall ni ñu ko waxee sant. Mhm. Euh, mere na ay ñoñam. Mhm. ñi nga xam ne envoyé woon na leen sur le terrain. Mhm. d'ailleurs conseil des ministres on di que ça a été fait très rapidement. mais bu ñu oui bu ñu bu ñu liiree li nga xam ne mooy communiqué bi. dañu gis ne Macky Sall est revenu très brièvement. ci élection yi rafetlu na tenue bi. rafetlu na maturité peuple sénégalais bi rafetlu na. Euh, pacifique euh, le fait que euh, peuple bi nekk un peuple pacifique mhm. def li muy def si jàmm mhm. après il est passé à autre chose mhm. jublu ci li nga xam ne mooy liggéeyu réew mi loolu aussi est-ce que finalement Macky Sall n'est pas en train de concéder cette défaite là il va camoufler défaite bi mu am ci élection yi xam nga lii lii défaite gënu ko mag lii c'est une raclée parce que yow munoo perte mais toutes les grandes villes et puis li gën a garaaw ci élection yi mooy Macky a perdu les villes loolu message bu extraordinaire la. lecture bu doy waar la ci war a def. la paix de Touba la paix de Tivaouane la paix de Medina Baye la paix de Ndiassane la paix de Yoff Layène. Mhm. et d' loolu lecture biñ ci war a tirer et canaba loolu lecture la ci président war a def. et pourtant euh, il y a ci biir campagne bi bi gars yi di tàmbale visite de proximité bi euh, délégation Benno Bokk Yaakaar mhm. defoon. chez le khalife général Serigne Mountakha l'incident oui ci kaw la toog mhm. gis nga la réaction de mourides mourides yi dafa am lu ñuy doxee am lu ñu gëm am noo xam ne buñ ko xësee ba décider dara mënatu leen ci kilifteef ak taalibe kilifteef ak taalibe parce que mënoo àndal ay deretu ku tedd ki mhm. ñu bokk ci politique bi di politique ñoom ñëpp ñëw toog ci suuf amagoo benn nobal tànk ci administration ci gouvernement nga ñëw toog ci kaw yooyu dafa am message yu muy lancé. mais est-ce qu'il n'y a pas ce choc-là aussi parce que euh, après tout il est le président de la République. on non, dit que nous sommes dans non c'était Mimi Touré. oui tête de liste. oui il représente le chef de l'État. ah mais Touba dafa am nu muy doxee. Touba dafa am nu muy doxee Touba boo leen bëggee te taalibe nga leen wan. Hmm. du xaalis du daraja taalibe nga leen wan boo leen wanee taalibe rek moom nga leen. Hmm. mais boo leen wanu taalibe ah dañuy heurté ak yow. Euh, malheureusement loolu day dal le régime souvent. Mm-hmm. discours boobu euh, cofeel bi nga xam ne nee nañu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké am na ko ci Macky Sall te dafay gën a yokk d'ailleurs. Mm-hmm. est-ce que finalement euh, ni lecture bi ñu ci mën a am peut-être que le religieux ni mu mën a waxee ak njabootam ci rafetal rek. mën nga ko jàppee noonu moom la ëmbal bépp gan. sëñ mm-hmm. Mountakha moom taxawaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mooy taxawaayu Cheikh El Khadim Khadim Rasoul taxawaay boobu rek la am. olof day wax ne ko am gan na la ñeem waa nga ñeel ko mm-hmm. gan gu ñëw lim séq yow mooy teral la ak kàddu yu rafet ak ñaan mm-hmm. position nag ak lam séq ak nit ki ak gis-gis gi mu am ci nit ki loolu doolu lu muy fësal kilifa du doxee noonu communication bu mag moo moo moo loolu propagande la et puis loolu sax ñoom arrangé wu leen parce que yow loolu déjà yaa ngi bëgg a wan ni yaa ngi bëgg pervertir kàddu kilifa gi mm-hmm. su boobaa dana am boo xam ne moom politique intéressé ko du opposition mais kàddu yi nga bëgg soppandi ngir li la arrangé moo xëy naqari ba day jug sanctionné la c'est-à-dire ñoom ba tey mooy li ñoom ba tey xamuñu ni ñu war a jëflanteeg yenn kilifa diine yi loolu dafa bokk ci li waral perte gi ñu perte foyer religieux yooyu yëpp mhm. nag c'est un pays à quatre vingt quinze pour cent musulmans mhm. quatre vingt dix pour cent confréries mhm. soo perte foyer religieux yooyu ku perte Touba perte Tivaouane perte Niassène perte canaba perte laay réew minorité ngi fi ku la ko wax ak ku la ko waxul. Mhm. d'accord euh, dama bëgg ñu taxaw foofu ci kaawu yoof mhm. euh, parlant de Abdoulaye Diouf Sarr balaa ñuy ñëwaat si quelques détails du communiqué parce qu'il y a des détails qui sont très intéressants yu ñu mën a euh, décrypter fii mhm. Diouf Sarr certainement ba tey bu ñu xoolee pouvoir bu Macky Sall ils ont toujours un problème avec la communication Diouf Sarr dafa ne bu fekkee ne Yoff waaye voté lu ñu ma Yoff va être effacé de la carte politique du Sénégal mm-hmm. est-ce que loolu aussi ça n'a pas été la communication qui a détruit euh, ah xam nga ba tey day ñëwaat ci li ma la wax am mm-hmm. laata moom muy gane àddina Yoff a ñu nekk Yoff bokk ci carte politique yàgg na bëri ay autorité yoo xam ne ñu ngi bawoo ci Yoff bàyyil autorités yi sax jëlal Yoff ci boppam mm-hmm. lay Yoff ci cëram ba muy am moom ganeegut àddina nga bëgg a wax ni yoof day yem ci biis bii ci politique moom bu fu moom bu moom bu faatoo yàlla na yàgg te yéex mhm. yàlla dund téeméeri at mhm. ba ñu denc ko yoof day wéy di doon Yoff donc kàddu boobu taxawul fenn yooyu mooy li ma la wax ñoom dañuy raté seen communication ak askan bi loolu boo ko waxee Yoff ñi la naroon voté sax duñ la voté mhm. ndax boo gañee dañuy naan li li saay wax ne Yoff dootul exister moo tax Yoff voté waat donc il est indispensable yoof dañ lay sanctionné woon la na la Yoff ngeen jox ko boobu bañ ko jox boobu yoof demeure yoof ak la mu doon. Mhm. d'accord euh, ba tey ba c'est abusé sax langage boobu. Euh, oui ba beneen beneen discours. Mhm. beneen discours parce qu'il faut en réalité ñu ñu ñu ñu duggaat ci biir. Euh, mhm. taxawaayu nguur gi en terme de communication parce que bëri lu muy yàq bu ñu demee Saint-Louis Mansour Faye. demoon na ba wax ne. c'est c'est les enseignants jàngalekat yi. ak taxawaay bu ñu am ci réew mi. ne ñoom ñooy endoctriner. la jeunesse au niveau des salles de classe gëmloo leen yenn yi ba finalement. xale yi dem ci carte <laughs> électeur bu ñu dem jëli seen finalement boobu aussi ça a été désastreux. xam nga dafa am nit ñoo xam ne man da dañuy refléter wax bi olof naan ku am alal duñ ko wax dëkk. Hmm. ku mel ni Mansour Faye il aurait dû faire tout son possible pour être le plus. Mhm. maam ki gën a oyof ci gouvernement pour. Macky Sall ki gën a sobre. waaw ki gën a sobre. oui que daa takk ci diw gi. Mhm. te toogagul ci bool bi. te day weex du. moo yow dañ ne prix ñu ne yaayaay kat yaay maaso fay même boo amee qualité bi am xam-xam bi lépp dañ ne liñ la fale mhm. mooy goro président. loolu rek waroon na tax yu bëri doo ci dugg yu bëri doo ko communiquer yu bëri doo ko doxee waroon na tax nga gën a oyof. faire le maximum même sax booy def loo xam ne sax du yow parce que tu gênes déjà ndax bu ñu la xoolee Mansour bu taxawee rek li ñuy gis mooy goro Macky xoolu ñu capacité intellectuelle bi xooluñu bagage xooluñu diplôme goro Macky Sall la ñuy gis dañuy gis ne li mu yor yëpp neexal la la neexal la rek sama goro mooy président kon kooku am na benn discours boo xam ne bu ko teniree day gën a dugal boppam maanaam Mansour fay fu ñuy àttee benn ministre lambda dix moom vingt lañ ko fay àttee. Hmm. bu ñuy àttee benn ministre lambda coefficient dix moom coefficient vingt lañ koy àttee ndax yi ne ci ginnaaw moo bëri c'est le c'est un proche du président c'est son goro Sénégal ñëpp xam nañ ni goro mel ak. ki nga may soxna. yéen hmm. yu yëpp boo ko boolee. bëri na aussi luñ koy tuumaal nii il est devenu milliardaire. après non sax dafa sori Mansour hmm. Faye secteur yi mu jaar yëpp. benn doxu ci ba mu yoree ndox ndox dafa yàqu ba mu yoree aide action sociale Covid ceeb yeneen ak yeneen. Mm. cest à waru woon jël yooyu yëpp. c'est pour même ne pas gêner le président am na yoo xam ne waru ko woon. yi muy jël yëpp c'est des budgets ko woon jël. Mm-hmm. pour ne pas gêner le président am na yoo xam ne doo dugg yow déjà da nga te diwooguloo mhm. waroo dangu jël yenn quantité yi ci diw gi da ngay gën a niin d' accord bu ñu revenir ci communiqué bu euh, conseil des ministres euh, Macky Sall effectivement wax na ci wàllu élection yi euh, mais une une not bonne note une note positive et c'est d'ailleurs ce qu'on attend de lui nee na il faut que le gouvernement prenne euh, toutes les dispositions pour préparer et accompagner l'installation mm-hmm. dans les meilleures conditions des députés de la quatorzième législature lu ñu mën a rafetlu la quand même mooy ah, taxawaayam bien sûr waaw ah, xam nga loolu moom discours la waaye discours ak jëf dafa am lu ko uti ñun xaarul discours olof daf ne nit ki du ni mu waxee la mel ni mu jëfee la mel mhm. xaar discours boobu ñu traduire ko en acte mhm. buñ ko traduire en acte su boobaa danañ applaudir mais lii ñu gis nii nduroowuñu ak lu bëgg tradure loolu en acte mhm. parce que di génn di lim département yoo gagné yoo wax ni yaa ko gagné te gagné woo ko di gonfler ay département seen coefficient wu député c'est du n'importe quoi et puis la communication dafa am solo Mimi Touré ces de sorties da ko raté. Mhm. ci naka. première sortie bi heure bi mu ko def baaxul. timing bi baaxul. à minuit lim teg ci loxo sénégalais baaxul. deuxième bi ñan ñoo ko entouré. loolu dafa am solo Sénégal dafa am nit ñoo xam ni la population joxatul leen crédibilité. Mhm. bu ñuy wax ñoom ak klaxon wu oto yii ci mbedd gi la ñu yemale. boo ñëwee toog ñooñu entouré la nga Sénégal day foog ne ci farce nga ne ak comédie. ak lu leerul ak lëbëj même boo nekkee ci lu dëggu parce que ñooñu la sénégalais yi vomir seen discours boo jëlee ñooñu ñu toog wër la et puis on a senti que l' appareil de Benno ne soutient mi Mimi Touré. Ah. parce que en mille dix neuf quand Boun Abdallah Dionne parlait c' était tout Benno Moustapha Niasse tous les ténors. Mm-hmm. si ñoo dem nañ retraite ak ñoom Aminata Mbengue Ndiaye mais seen lieutenant yaa ngi fi les tous les naa de Benno kenn newu fa. Mimi Touré qui parle au nom de Benno entre de Maître El Hadj Diouf Maître Ousmane Seye Talla Sylla loolu du Benno donc loolu ça prouve que l'appareil de Benno ne soutient pas Mimi Touré ci démarche bi mu ne en ci li ñu gis waaw ah, ci li ñu gis mhm. alors est-ce que est-ce que est-ce euh, dafay mel ni dañ ko jox bopp rocce làmmiñ niru na ko quand même mhm. euh, mais est-ce que c'est contestable aussi ci résultat yi ñu am mhm. bu ñu demee ba yeewee askan wi au au plan national am lu toll ci un million cinq cent huit mille huit cent cinquante quatre euh, mhm. jamono bi nga xam ne Yewwi Askan euh, pardon euh, Benno Bokk Yaakaar mu ngi am un million quatre cent quatre vingt neuf dañu gis ne foofu véritablement Yewwi Askan wi moo jiitu. mais ci benn communiqué bu Yewwi Askan bi wax naa ko tout à l'heure mhm. ci naka la ñu mën a fexee ba da renverser la tendance. Euh, ci yenn pexe est-ce que est-ce que est-ce que. Euh, mënul ne fexe bi ñuy jéem nii mënut ne. mais lu waral taxawaayu Yewwi Askan Wi en ce moment là. non Yewwi am alerté y dana am taxawaay bi mu war a am ci en temps bu nekk. Mhm. temps wu dénoncer dana ko dénoncer. oui temps wu contester dana ko contester. Mhm. temps wu tenir debout jël ay responsabilités am dana ko def. Mhm. parce que lii kenn du nangu ñu ñu. confisquer waaw ñu confisquer le suffrage des Sénégalais. yow fi ngay jéem a inverser la tendance vers le nord mënul ne. nit ñi mënuñu voter vers le nord ba romb euh, votu dakaar et Touba loolu c'est impossible. d'accord